université Gaston Berger bu Ndar léegi bi Babacar bi ñuy déggante rek maa ngi koy wax léegi ni euh, xale bi kon moom mujj na euh, daal di ñàkk bakkanam muy étudiant bi nekkoon ci université Gaston Berger bu Ndar xibaar yi dañu ko confirmer ak source euh, yi nga xamante ni ay source hospitalière yu wóor la ba pare itam ki nga xamante ni mooy Ousmane Ndiaye bi nekk ca université Gaston Berger bu Ndar nekk ci UFR santé moom it xamle na ni étudiant bi nga xamante ni tey jile ci affrontement yi laaloon nañ ko bu mu am ci ay góom ba ñu mujj ko yóbbu ci hôpital mu doon nàcc nàcc bu métti faatu na euh, nga xamante ni mooy ci hôpital xale bi sax dañ ko mujjoon euh, fexe yóbbu ci réanimation pour mën ko xettali waaye ca mujjantal ba moom étudiant bi mujj na ñàkk bakkanam Makumba. Hmm, xam nañ lan moo ko faat. waa li li wóor ci wér mooy ñi nga xamante ni ànd nañ moom nee nañ ci manifestation yi la nekkoon foofee lañ ko jëlee duñ ko fa jëlee nag nee nañu deret bu bare moo doon tuur ci moom. ba pare nag ñu daal ko yóbbu ci hôpital régional bu Ndar ngir mën ko xettali ci hôpital régional bu Ndar fa la war na mat ay quinze minutes. xamuñu fu mu ba bàyyeekoo ba xam Ndar la dëkk wala étudiant fu mu dëkk ci Sénégal. waaw loolu moom xam naa ni ci suñu ay xibaar suñuy gëstu incha allah ci karam daanu ko mën a leeral ndaxte itam xam nga ni ñun ay taskati xibaar lañ yoo xamante ni lépp lu ñu joxe rek bëgg nañ mu loo doon loo xamante ni. Mhm. day leer nañ. mais daal li ci wóor li wóor ci mooy information bu xale bi fan la jógee ak fu mu bokk. Mhm. amagun ko mhm. mais étudiant la bu nekkoon ci université Gaston Berger bu Ndar. jërëjëf Ousseynou. Eh, maam Gorgui Ndiaye mi gaañu tamit. waa këram nee nañu lacrymogène moo dugg ca biir kër ga moom la yi daal di xëj ba tax euh, foofee la doxe kon euh, mm. daal di faatu muy ñaari nit ñu faatu kon ci manifestation yi